asiru malabay Le complexe islamique Khadim Rassoul de Touba ñaan suñu borom subhanahu taala moom la njëkk di gërëm ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba moo ko ne iqra bismi rabbika allazi xalaq suñu maam Cheikh Ahmad Bamba ci jëf balaa xam-xam moo koy joxe lépp lu ñu doon saa ci la ak réew moo koy joxe Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu jàngaloon na waxoon ne samay man Sëriñ Tuubaa dafa yulli xam-xamu bi diine demee barab samay bind dafa xam-xamit yaatu na lool moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne woote fii ñu am ko suñu borom jagleel yi Sëriñ Tuubaa daara ji boole yoo xam ne dana dana sëriñ bi daara ji ji nga door ñu xayma ko ci fanweeri milliard ak juróom-ñaar ak lu topp ñu ciy jàngale alxuraan mbooleem xeetu langue yi comme ni ko si Amadou Ba yi waxee léegi nii ak mbooleem xeetu xam-xam yi ak métier yi nga xam ne dafay jëriñ président